taraax la ñuy def ci xew xew làmb tey fekk fa Boy Kayre kàddu yamu yëkkati jébbal ko Gaston Mbengue moom la doon king ginnaaw ba mu génnee démb daal di tàkkale arbitre tey Boy Kayre moo ko tàkkale xeex bi ñu sumb fas yéene cee dem ba jeex ñoom ak lu danoo jàpp Gaston Mbengue da di barrer la loolee moo waral Boy Kayre ba mu déggee kàddoom dafa xëy ci sunu làmb fësal ne ce n'est pas lui qui va du Gaston Mbengue moo nu mën a teree bërëng li nuy bërëng a wax mooy na Alioune a sàkku ci président Alioune baa ngi ci crise te CNG amatul solution ngir bu dee lim defaroon yépp da koo bëgg koy xaar ñun xam nañ ne Gaston ci suqu Alioune moom a respecter arbitre yi respecter axlu la a baare suñu yoon nag xeex boo xam ne ko nous lépp ngir Alioune Sarr jóge le ministre Matar Ba rek moo ko fi mën a moom le ministre xëy na wax ci mbir ma le ministre des sports Matar Ba ma ñu doon xaar ngir mu àddu ci problème mu ak arbitre yi àdduna ca mbooleem kàddu yi ñu bëggoon mu tukkee ca Matar Ba ngir conflit boobee réglé tukkeewul ca monsieur le ministre ministre ba nu ko laajee dafa xam ne waxuma ci sama yoon nekku ci si un arbitre est suspendu ce n'est pas ministre de régler le problème exemple ba mu joxe mooy nan ko xool ci football bu dee joueur wala arbitre la ñu yoonu ministre nekku ca ñun dañoo délégué ay pouvoir ay fédération ak ay comité bu problème amee seen biir ñoo koy fajal seen bopp ba crise bi amee ci làmb ba léegi Alioune Sarr mu ngi ciy doog a yee yàbbi démb ci talaata ji le ministre des sports dajale lépp luy fédération sportive ak comité na problème waaye Sénégal a sax waaye àdduna bi yépp a nekk ci problème problème bi mooy nu ñuy xeexi jàngoro bi lëmbe réew mi ba mu jeex tàkk guddi yi lépp luy coowal làmb dañ koy jël tege ko ba daan jàngoro ji ba noppi bu nu daanee jàngoro ji ba noppi nag door a dellu siwaat ci problème yi am ci arène bi fas yéene koo saafara saison bi ñu mënut a saafara kay mooy saison bu 2018 2019 waaye mbir ma gën a tinaa jéggi dayoo daaw ñeenti combat ténor amoon na waaye ren benn du ak Boy Niang 2 ñaari combat ya jotoon a taxaw yépp avorté na Modou Lo Ama Baldé di combat royal ba mujjul am Papa Sow Siteu bi ñu jàppoon ne mooy bégal amateur yi jàngoro jo fomm na ko général Malika fils de bi waroon am le mars beneen yoon lay amati combat bi waroon am le avril diggante Coly Faye 2 ak général bu Fass fomm nañ ko ba beneen yoon diggante Modou Dia ak Bambara bi waroon am le 13 avril fomm nañu ko jërë ngeen jëf